فزت بزار في الأزانة سيدة allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul huqudatan min lisaani yafqahu xawli sëriñ bi sëriñ Alaaji Fàllu maa ngi yëkkati nuyoo yi gën a tedd di nuyoo lislaam man ak délégation bi bawoo fa président de la république son excellence Macky Sall ñu ràññee ci le ministre de l'eau et de l'assainissement muy Serigne bay jàmm mi ngi dend ak suñu naataango ministre fonction publique galo Ba mu dend ak ministre du commerce porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana waaye ñu ngi ànd tamit ak le ministre de la culture di Alioune Sow bi ñu ñëwee fekk nañ fi mu dalal ñu ci région bi le gouverneur Ousmane kan teewal fii président teewal fi premier ministre amadu Ba waaye tamit teewal fii mbooleem membre gouvernement bi fekk nañ fi préfet département bi ak sous-préfet yi Serigne Ablaye lim yëpp fekk nañ fi tamit président conseil départemental bi député yi au conseil yi ak maire yi ñun ñëpp bawoo fa président de la république son excellence Macky Sall ñu ngi lay wax di la ñaan nga jotil ñu ko Serigne taxa yal na yàlla yokk wéram te gën ko fee yàggal ñu ngi teg ci sa loxo nuyóob lislaam bu sell boobu di wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa wa barakatuhu ñëw nañ ci bis bi ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall indi ziaram waaye tamit indi ndokkeelam ci bis bi muy ñaan sëriñ bi mu jotlil ko ko mbooleem taalibe yi waaye mbooleem jullit yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal ak ci àdduna bi tey nag bis bi tax ñu ñëw fii da di bis boo xamante ni dañ koo jagleel soxna su sell te mag muy soxna maam bu Bousso Jaariyatullah sa waajur wu baax wa di sëriñ Cheikh Mouhamadul Bachir jàngal nañu ci lu bari leeral nañu lan moo doon ay jikkoom wax nañu ni jàngalekat la woon jaamukatu yàlla la woon waaye ku mënoon taxawu ndongo yi ci daara ji la woon moo tax bi mu wuyjee sunu boroom tiis dab na daara ji ba ñu bari ci ñoom waxuma jooy yañ ca jooy waaye marché yañ ca def ba tey ñi ngi koy fàttaliku kon kooku mooy soxna Mariama Bousso suñu maam jaaratullah mi dëkkaale ak boroomam ba damay toog sànq di xool jànkati xasida yi ma gis sëriñ Ibra Thioune mel ni dafa bokkoon ci mbooloom Baye Ablaye Niang di jànkatu murit bu mag ñuy fàttaliku li mu defoon muy hommage bu mag bu mu jagleeloon suñu maam Mariama Bousso Jaaratullaah di ci fàttali lan moo war a doon ay jikko yi nga xamante ni moom la jullit war a lamboo te ci way woowu am na bayit yu neex yu ci nekk mu mel ni Baye Ablaye Ñang da daan faral di fàttali naan ab jullit la muy jëf yéene waral këru nguuram mu mel ni Baye Ablaye ñaŋ da daan fàttali ni ab jullit la muy jëf yéene moo waral kërug nguuram yéefarit la muy jëf yéene moo waral kërug dóoram mu ni kon jullit war nay jëf te boole kook yéene te jaaraa jëf boole kook yéene loolooy mbir ma lii nag li muy wane di ko firnde mooy bis bu mel nii bu ko suñu maam soxna jaara mënee am jëf ja ak yéene ja moo ko waral mu teg ca ni maam moor jaara mooy ab liggéeyam yéene jaay bamba kook kon ba tey yéene ji ak jëf ji dikkat na sëñ basiiru nag dañ koo amal njukkal ndax olof dafay wax ni bu lëg lekkee alom na ko gërëmee coy bu ñu mënee dajaloo fii tey ci poroxaan dañ koy sante sëñ Basiiru mi nga xamante ni sëriñ Touba moom la daan yabal muy nemmiku ci bërëb bi ba bañ koo gisee mu dundal ko ba lii yëpp mën fee am tey waaye sëriñ Moustapha mi nga xamante ni moo ko wuutu woon yeggale liggéey bi ba tey sëriñ Muntaxa jot ci sëriñ Muntaxa moomu nag ñun ñii ñëpp amal nañ ko njukkal ndax dafa am dénkaane bu mag boo xamante ni sëriñ bi moo ko dénkaane woon te bu ñu demee ci njàngalem sëriñ bu Bousso dinañ ko fa fekk muy université bi nga xamante ni war nañ koo daloo ci fan yu néew te lool yi sëriñ Muntaxa sumb yeggaleel ko maamam ndénkaane la woon waaye mébét ak yéene sëriñ Touba la woon kon foofu sëriñ Muntaxa nekk taxawal diine di ko liggéeyal te waxaloon boppam ni li tax muy sant son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mooy da koo dimbali ci diineem jàppale ko ci te loolu neex naa dégg neex naa xam mënees na koo ràññee ndax li ko waral fii ci Poroxaan buñ ko seetloo ci ñaari at yi weesu li fi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall def ku ne teg na ci bët bokk na ci ñetti forage yu mu fi def bokk na ci kilomètre tali bu fi def boolewuñ ci piste yi bokk na ci résidence bi nga xamante ni ñoo ngi koy def bokk na ci centre de formation professionnelle yi waaye bokk na ci cinq postes de secteur yoo xam ni électricité la quatre cent cinquante lampadaires LED ak ay téeméeri téeméeri téeméeri branchements sociaux loolu nag li muy wane mooy yitte solo ji président de la république son excellence Macky Sall jox diine kër diine goo dem mën ngaa teg sa loxo gis sa bët lam fa def lii biñ ko dëgmalee muy màggalu poroxaan gi daf ñoo jox ndigal ni ñu na ngeen ànd ak mbooleemi service gouvernement bi taxawu ko ba lépp mucc ayib moo tax ci wàllu courant yokk nañ ko wàllu ndox yokk nañ ko wàllu hygiène ak assainissement lépp luñ ci waroon taxawee def nañ ko ci fi may daanelee sëriñ bi mooy jot li yóbbante son excellence monsieur le président de la république Macky Sall xam na ni naka jekk ma nga ca waaye di ñaan Serigne Mountakha gën a ñaan ci dëkk bi yàlla gën fi dolli sutura gën fi dolli xéewal gën fi dolli jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu tubaarkalla leer na nañ xanaa monsieur le ministre ku dégg ñu nga wax mu xam ni am murit a ngi wax waaye ku ñu yar ci yoon waa ngi wax waaye ku déglu ku déggal président la république moo doon wax sëriñ bi kii toog monsieur le ministre kii toog ñaari tànk la fi tooge tey ministre Khadim Diop day jarbaatu sëriñ bi waaye nag di kenn ci président la république président Macky Sall waaye di gërëm nag meeru dëkk bi Alsane mbay di jàmbaar moom itam mi ngi nii toog moom moo dala waaye meeru Paskoto Jim Mamar Ba sëriñ bi dafa tukki waaye at seen mi ngi fi ak at seen meer yu bari te Jim Mamar Ba ah mooy Nioro te Nioro mooy Porokhane moom itam délégation ñi ngi fi at seen meer yépp ñoom ñépp tubaarkàlla ñi ngi fi pour jëkkanteeg waxtu wi nag ñu jox kàddu gi sëriñ Fallu moom Cheikh Mamadul Bachir mii sëriñ Muntaxa magam ju doyloo yebal taawam bii ak sëñ Isaaxa ak sëriñ Maxtaar Mbàkke mi toog ak njaboot gi ñuy indi leen ko teg ko ci wetu ministre bi bu pare mu tontu ko kon nun ñëpp nu déglu sëñ Fallu yéen sunu bokk domaar bi fi daje yëpp yéen sunu bokk fi daje yëpp di bokk jullit mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu turu sëñ Muntaxa moom Cheikh Mamadou Bachir nga xam mooy njiital murid yëpp suñu borom su suñu nag lu xooli sëriñ Touba te am rëy nag ci lislaam ñaan suñu borom suñu borom yàggal ko fi dolli ko dolli ko tal ma ànd ak moom yooyu di jëkki mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy lépp ginnaaw yàlla ndax seen bu waral bis bi moo wàcc bis bi kon ñoom la ñuy jëtti leen xamal si leen yëgal sunu cant leen cantuk sëriñ bi ak ngërëmam bu baax a baax xam ne gis na seen jëf yëg na ko ndax xam na ne boole ngeen seen xel ak seen xol ak seen jëmm ak seen ñox ak seen la am def ko ci bis bëgg rek teraanga bi wala li jëf sant leen ñaan gën kanam bu baax a baax di sant suñu borom suñu bokki suñ suñ ba xam ñooy suñ bokki bopp di njabootu ko moo xam ci gañoo moo xam ci bàyyi la ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen sant gis na seen bu jëf gis na seen bu taxawaay ñaan bu gën a yàgg te gën a dolli ko da ci teg suñu mbokki diine yi ak kër gu ñu mën a bàyyi ko tarixa bu mu ñëw bokk suñu bokk rasulullah bàyyi ko incha allah loolu ñoo ngi leen sant bu baax a baax te xam nañ seen bu gis na seen bi leen gis na ko mi ngi leen bu baax baax ñaan yàlla suñu borom moom mi leen fi indi mu dellu leen ak jàmm ak dellu si gu ëpp ngeen indi woon ci xéewal ci daraja sëriñ Tuubaa ginnaaw ba loolu wéyee ñoo ngi sant nag yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital suñu kanam tañ nangul na ko wér a wér noo ngi leen nuyu bu baax daam ko seen ci ñoom ñu teew ba ci ñee ci gën di ndaw ba ci gone yi nga xam ñoom lañu àll ñu takkader yi defar def kaaraange ji ñëpp lu ngi leen di suñu daal leen nuyu di leen dem leen sant bu baax a baax ah di ñaan nag suñu borom suñu daje bii ñu yàggoo ko gën a daje te lépp di xéewal te suñu borom sottal nag jàmm sotti nu jàmm sotti nu jàmm lu fu saxaat yàlla na ko yàlla fay soppi ko mu muy jàmm ci dara gis nañu ko leer na nañ mbakke xol yi sedd na xel yi dal na su ko defee leeral sa euh, euh, monsieur le ministre bi muy ñëw Basirou kebe dafay conseil ci président la république di ko baax moom it di doomi Saalum ànd na ci délégation bi léegi nag ñépp tàllal Cheikh Madou Cheikh Madou Bachir ne na ñépp tàllal ci kanam Serigne Fallou nag mu ñaan monsieur le ministre tàllal yaag délégation bi nga àndal yépp te fasal président de la république ne sëriñ bi ne ñoom ñii kat laata ñoo ñëw am na ndaw yu ñu fi jëkk a am na lu ñu fi sémb sémb wi weesu na ren weesu na daaw ña nga ca nag di liggéey ne yëggagul nag fañ ko jëmee waaye alhamdulilahi rabbil alamina monsieur le ministre sëriñ bi ne seeni doxin gaaw na ne na yegg ak jàmm ne bu yeggee jàmm sëriñ Basiiru mii dana ci wax ak yéen jërë ngeen jëf na ñëpp tàllal amin Mbakke amin yàlla na ko ànd ak yéen ba mu yegg ak jàmm amin amin Mbakke amin amin amin fusti bi sa fi la sana